mu nekk jëmm joo xam ni teel naa mokkal alquran xam nañ ñi ko jàngal loolu yaakaar naa duñ ci taxaw lool te tafsir Mbàkke Ndumbe nga xam ne jàngal na ko lu bari ba ni mu fi jógee njox ko sëñ Busoo bi sëñ Busoo bee ko àggale àggaleel sëñ Busoo bi itam bokk na ci ñi ko jàngal xam-xam ak waajuram bu góor sëñ Mamour Anta Sali ak Cheikh Mouhamadou Yadali al Fadili Daymaani nga xam ne jëlee moom ci moom la jëlee ilmul bayaan waaye waajuram bu góor moo ko jàngee qiraat as-sab'a xeeti njàngiini alquran yi yépp ci waajuram bu góor la ko la ko jëlee Xaadima Jaxate Kali daana jël ci moom ay xam-xam lu mel ne ilmul arud ak xawaafi yu ci bari ci moom la ko jëlee waaye ku mënoon a mokkal la Sëñ Tuubaa mooy jëmm joo xam ne mosula mokkal dara jàng dara lu may da ko mokkal téere yi gën a rëy lu mel ne Muxtasar Cheikh Xalil Sëñ Basiru neen da ko mokkaloon téere xadis yi moom moom moo nee na waxale wuma ko ak alquran moom ni mu ko mokkale ak ni mu ko jekkoo moom musta am ku ni mel nekk noonu xam-xam yëpp da cee da cee géej woon lu mel ne xam-xamu alquran ulumul quran ak xam-xami xadis ak fiq ci mazahib yëpp nag usulul fiq noonu ak tasawuf moom it bu ci duggee da nga yaakaar ne loolu rek la xam balaaxa ak mantiq ak xeeti xam-xam yi aju ci làkku arab itam noonu la ci meloon li ko ko mayoon nag la ca gën a fës mooy dafa doon ko sàmm moom sëñ bi ci moom nett li na ne yàlla da ko binde ak sàmm goo xam ni ba mu kàllafee sëñ Basiru nee na mas na ma wax ne ba ma kàllafee ba tey ji mosuma yokk ci ak sàmm wala ci genn ci jaamu yàlla yi may def lu ci ne nam jóge woon rek noonu noonu noonu noonu la noonu noonu la ñëwee sëñ Basiru nee ma laaj ko xanaa géej gi kon loo fa yokkoo mu ne ma foofee xam naa la ma fa yokkoo mooy mooy maarifa billahi ak wusul ilallahi ak yaqin bi maratibihi waaye ak sàmm moom ak jaamu yàlla loolu moom nam tàmm doon ci njëlbeen nga la tàmbalee te sëñ Tuubaa xam ngeen ne soxna maam jaara wax ne ne Cheikh Mahamad Bachir moo ko nat li wax ne ci njëlbeen da ko daa wax ne ko dëbu saalihiina qiyaamul layli qiyaamul layli dëbu saalihiin mooy gaa ñu baax ñi dafa bokk ci seen baax seen aada mooy faw dañuy taxaw guddi wax na nag boobee la tàmbali woon moom di taxaw guddi yi moom te boobu sax demagut li ñuy wax daara lay dem ca pénc ba ca jàkkee pénc ma fanaane fa taxaw bu bët set te boobu demagu dara noonu la tàmbali woon mu nekk koo xam ni jaamu yàlla moom mën nañ ne dañ ko ko mooñaale yàlla kese la doon jaamu itam allahu rabbi wa waliyi abada abadtuhu wa gayrahu lan abuda ci misaal mu tuuti rek ci ak jaamoom yàlla Sëñ Tuubaa sëñ Basiru nee na mësula tiim lu may benn yoon ci dundam benn yoon rek kese la tiim ci ak dundam njàpp itam mësula julli ñaari njàpp ñaari julli ci menn njàpp moom dara wax ne man duma jëfandikoo ay seel dañ ko indiloon naanaa joo xam ne ju wow la ki ko indil mu ne ko xanaa xamoo ne man duma jëfandikoo ay seel du seel yi diine du seel yi aada ay seel seel yi diine mooy moo ko leeral ne seel yi diine mooy menn njàpp nga julli ci ñaar ñaari julli farata june ak njàppum boppam mësula teqalikoo akum njàpp itam moom daa bokkoon ci mu jaayante mooy am njàppam moom du teqalikoo ak moom waaw waxtu wu ne mi ngi kum njàpp li taxoon mu tiim boobee sax wax nañ ne kam joxoon satanda gi mu doon def ndox mi te mooy ba ñuy tudd sëñ Masamba ginnaaw Mamour Anta Sali ci njëlbeen nga ki mu joxoon sat la gi wax nañ ne kooka dañoo dem ba mu yàgg ñu réeroo ci yoon nga xam nga sëñ bi doxam daa gaaw xëy na ñu jiitu kooka sëñ bi dem na dëpp na wër ko wër gisu ko keroog nag la mujj joxe ak sat lam nit di ko yoral ba ni mu fi jógee ak sat la boobu moo koy téye moo tax mosula tiim ci la si dundam ni ko noonu itam ak noddam ak noddu noonu la ci meloon danaa wax ne moom sëñ bi moo ko wax Cheikh Mouhamadou Lamine Dagal nettali na ko nee na wax na ne saa yu ma wéradee lu wéradi gi metti metti ndax ca gànnaar wéradi na fa wéradi goo xam ne àgg na ci xamut daanaka ci li xew dara ngir mettitu wéradi gi boobu dafa wax ne nattu la woon boo xam ne daa waroon a wàcc ci jaam ñëpp ma ñaan suñu borom mu teg ma ko moo tax fa mu taxaw rek lañ jékkee dégg ko mu ne dal ci suuf di wéradi goo xam ni moom moom moom lu ni mettee amul fenn àggoon na ci rëññ mënta ràññee dara xamut dara waaye sëñ bi dara wax ne fu fu ñu noddee yàlla dina ma defal tawféex yi dootuma yëg mettit wi ba dem ba ca ba julli jiwaat ba del si mettit wi doo ko tàmbali bu dee sëñ Tuubaa mooy jëmm joo xam ne mësta am néegub tëdd amul benn néeg boo xam ne wala lal lal boo xam ne da ciy mësta tëdd mësta tëdd cib lal ci ci dundam mësul la nelaw guddi ba mu jeex maanaam mësul la nelaw sax guddi ay nelawam ni mu koy misaale am na net li bu guddi boo xam bu gudd boo xam ni dafa doon wax mag ñi leen yéen nu ngeen di nelawe kenn ku ne wax na mi nelawe mu ne leen man day nelaw du ma ko xaar fenn ne leen fii nu toog nii de mën naa fi ne gàmm nii waaye bu jeexee jeex na bu duggee ci biir guddi gi da koy fanaanee julli moo tax dundam yëpp da ko fanaane guddi guddi guddi yëpp ci dundam da ko fanaanee julli maanaam dafa fanaane xiyaamu leen sëñ Basiru nee na ci mu jëm ci mu jëm li ëppoon ci li mu def ci guddi gi mooy bind ak léeg-léeg mu julli waaw waaye ñaar fukki at yi nekk ci ci ci ci digg diggu ak dundam moom julli moo ci ëpp ak léeg-léeg tudd yàlla ak léeg-léeg mu bind yu demee noonu la la def ci guddi gi mosu la nelaw guddi loolu lu yéemu yéemu dafa ne jëmm la joo xam ne itam mosula dokkoor daanaka lu may ci bis yi xaraama woor suñ basiru nee na daana kaana yatfu bil layaali wal ayaam laa yaduuqu min altaami illa ma yuqimu sulba wala min almaayi illa ma yabullu soda mooy danaa taxañ ay guddi daana am jege lu def xalwa boo xam ne léeg mu xaw a jege weer te dara ci aw ñam du duñ ko ko dugalal du jëfandikoo dara bu demee bay xéwlu nag ak ak xéwloom sëñ Basiru nee na ndab li maanaam xeetu laaxu yooyu yi nga xam ne moom la mag ñi daa jëfandikoo xam ne laaxu daqaar lay doon boo xam du saf dara desu ko mu sëñ Tuubaa bokk na ci lim jaayante woon mosu la boole ñaar yu neex lu mel ne café ak suukar mosu ko boole wala ataaya wala suukar mosu ko boole naan ci dundam gis ngeen am na lu mat ñaar fukk ak juróom-ñett ginnaaw bi mu yokk ba fanweer ak nangam ci yoo xam da koo jaayante moom nga xam ne moom yu dagan la yu lew la te mosu ko def ci dundam mooy laj kax da ngeen ko dégg gis ci mbindam lu bari bari yooyu da ko jaayante mooy ci misaal toog jublu jublu fu may penku mosu ko def mosula tudd rasul lay lu may ne daa julli ci moom gis nga xasida yi bu ko tuddee lu tudd gi jege jege faw mu julli ci moom doo ko jàll yii dagan lu ci bari bari noonu noonu noonu la demee woon fi ne tey mosula boole ñaa suukar ak café daana ko defar moom di ko joxe waaye musuta nag boole xewloo ko ci dundam moo tax ñuy wax ne bu masaa di di defar attaaye bu mas léeg-léeg mu defaral nit attaaye loolu de loolu am na ci nett yu wér waaye bu masaa defar attaaye bu koy suukar suukar sa day liddiku day suukar suukar boo gis muy muy liddeeku mu doo ko xam ne saf na mu jox la mosu ko boole naan waaw sëñ Basiru nee na xéewal gi ñu ko daa defaral bu ci jëfandikoo ba bàyyi boo ñëwee da ngay jàpp ne xale da ngay jàpp ne xale moo ci doon foo ci ay baaraamam dina ci teg baaraamam waaye doo gis dara jug ci noonu la meloon ci ak ak dundam ak julli mosu koo faat mosula julli itam ci digg waxtu waxuma la ak mujjug waxtu ci njëlbeenu waxtu la la la la la julli am na ku ñu wax Cheikh Abdul Wadud ibnu Sayyid Abdul Abdul Abdal al Abiri wax ne am na jamono joo xam ni mas naa nekk sëñ bi diir bu yàgg waaye nee na fu waxtu wi jotee rek day gis mu daal di jóg. bëgg a julli am na bis boo xam ni daa tàng lool ci digg bëccëg gi ci aw tisbaar ma ne ko sëñ bi te nga xar ba kër ga xaw a sedd mu ne ma inni uridu an afala inda al amri maanaam yàlla ginnaaw nee na mën naa julli te waxtu wi jot na fi ma ko digale rek laa bëgg daal def loolu bëgguma ci xaar dara waaw mosula julli itam diirub mu koy man mosula julli lu may ci mbooloo moo tax dëkk bu mu sanc tabax na fa jàkk ba jàkkam ji ci Tuubaa nga xam ne moo ko simbal boppam naalal ko boppam amoon ca pas-pas boo xam ne mos sa nongu kuy werante ne dana am ak du am xam ci mujjam la laaj ñaar fukk ak juróom-ñett yooyu waaye gis naa ci jawaabiul kalim bii nga xam ne moom la bàyyi sëriñ si la def ci nettaleem am na foo xam ne àgg na ci wax ne képp ku sikk sàkka ne sama jumaa jee dana taxaw moo nga sikk si moo nga sikk sàkka ci suñu borom sorewuñ waaw de faw mu taxaw kon te jàkka ji gis nga xam nga ca tukki ba am na bis sëñ beeku nettali boobu mi ngi ci irwaawu nadim min abdi xubdil xadim bu cheikh mohamad liw ju dagana nee na bis dafa fa mu nekkoon ci camp bi nga xam ne moom la nekkoon ak tubaab yi dafa defaroon jàkkaam ci buntu néegam boo xam ne ñeenti bant la woon nga xam ne bu bu bu julli jotee mooy génnal boppam noddu ca kaw moom kese mu julli ci jàkka ji bis nag nee na ki jiite camp bi ñëw falaxe bant yi ne ko fii jàkka amu fi da nga bëgg a yàq kii bi nee na am ku ñu wax yelli sëy ñëw di xuloog waa ji tekkusaan ba timis nar a jot fi ñuy xuloo moom sëñ bi moom nee na foofee laa taalife fi la fi la toog di bind raditu an il mawla taala alladi rabba fuaadi wa agnaani fa wa akrim bihi rabba li gën a yéemu sëñ Tuubaa mooy mbir mbir mi koy dal li muy naqare naqare du feeñ ci waxam raditu an il mawla waaye nag wajal bihi masjidi rahba yaakaar naa ci biir xasida rek ba mu àggee foofu la ko suñu borom xamal ne ko dinaa la may ñaari jàkk ca njaareem ak ca Tuubaa moo tax jàkk ji musta nangu ku ko sikk sakk xamoon nañ dana taxaw waaw ba gis nga Cheikh Mouhamadou Fadil wax jooju mu ci wax nga xam ne sëñ bi moo leen ko digaloon te waxoon na leen na ci ñëpp def seen yitte te bu ci kenn des ginnaaw te kenn ku ne lu maanaam wax yu bare bare yi ngeen xam te sëñ bi sëñ bi wax ko